rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki ami internet bu association ànd taxawu ñu wéré di TV bay Pape Niang dellusiwaat di leen nuyu fi leen daan nuyoo di leen nuyu ci mbégte waaye di leen nuyu ci guddik Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla suñu borom koo xamante ni jamono bii mu ngi ci mbooleem suñuy gàmmoo ngir màggal guddik yonent bi sallallahu alayhi wa la ngay sàkku ba tax nga dem yal na la ko sunu borom defal lépp lu ngeen fa ñaan yal na ko yàlla nangu yal na yàlla sàmmal ñu boppam sàmmal ñu njaboot gi aaral ñu boppam làq ñu fa yàq yeggul yàlla am na ko yàlla mën na ko yal na ko yàlla defal ndeem ñun ñi nga xamante ni sunu yéene moo nekkoon tey jii ñu utali fële ca diwaanu Touba yóbbu ki nga xamante ni moom moo di njole Diouf yóbbu ki nga xamante ni moom moo di koddu euh, mbay yàlla dogalu ko ndax li tax yàlla dogalu ko mooy bugguñu leen yóbbu te seen ñaw yi nga xamante ni tailleur bi mu ngi koy ñaw te wax dëgg yàlla tailleur bi lu ñu waxoon ak moom daanaka daal defu ci dara defu ci dara ba dara booloo jeef jeex ndax waxoon nañ ko ni ko ñii euh, samedi la ñuy dellu ci seeni dëkk ba mu maloon ñu ni moom incha allah lépp lu mën dina ko def ngir ñaw yi pare ba mu xamee ni mënu ko dañoo waroon a jox ñawi rek ñun ñu xam wala it ba mu xamee ni dañuy tardeel mënoon nañu wax li ci nekk su ko defee ñu bañ a def benn programme muy am solo wax dëgg yàlla loolu moo tax ñoom demuñu ba tey tey ñu ngi fii ñu ngi en direct instant de bonheur tey guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tey ñu fas yéene jàkkaarloog ki nga xamante ni mu ngi bégal sénégalais yi ki nga xamante ni saa boo ko defalee instant de bonheur instant de bonheur bi day fees dell ak ay cœur dama bëgg a xam nag tey fan ngeen féete kan ngeen àndal ci ñi nga xamante ni ñoo toog nii kooki nag mooy kan la princesse Fatigna mi nga xamante ni live bu muy def gën ngaa néew mille personnes dinañ toog seen i kër di ko seetaan tey jii bu ñu defee instant de bonheur jëmale ko wax dëgg yàlla ci ki nga xamante ni mooy kodd ak njole ñu fas yéene ko ànd ak Fatigna mu accompagner leen tey ci direct bi nga xamante ni ñu ngi koy def dana am solo lool tey fii du yomb tey jii nii tey ngeen ree ba xotteeku code rek du maye dara waaw balaa may balaa may ñëw nag ci allahu akbar kon ngeen may ma rek ba nodd gi daanu ma soog a ndeysaan ak sayakun ñu ngi santat yalla bu baax ginaaw bi nga xamanteni ni may nañu katan ba ñu mëna a euh, nodd gi wax deug yalla ñu fas nak tambali li nga xamanteni ni lañ dor waye kenn ku ci nekk dinañ la laaj ni nga solo noko solé te ki nga xamanteni ni moom lañu njëkk dem moy njole ah. na nga def waay sa gerefaas bi mom ya ko tégal sa bop wala nu awaa la ko tegal ni mu sa ni mu ko tege ni num tuddu ban tour la am. Nikita. nga ni. Nikita. yeen bu len fi retane de commencé gu mo ngeen retane may wona da ngay génn de voilà. nga ni nga ni num tuddu Nikita. Nikita. waaw ma ngi lay nuyu. waccal bébé Cheikh mi nga xam dalay xol ni rek ay njole njole tay mom no modé ni ah <laughs> ah Ndiolé Ndiolé. waaw yow tontu ma fii tey noo moddee nii. dama xëy <laughs> eh, mel ni ku bokkul ci waxtaan wi. <laughs> ah bokkul ci waxtaan eh nel aw mu ñew peñal ko greffasam bi way nga ni friz ni lay mel yow yow yow greffas bi nga takk ban greffas ah, maa nga dàqale do yow dàqale bees la jox ne maa dàqale ne jox ma bii ah, ne maa dàqale yow yow la yaa jox <laughs> yaa ko pare jox la yow bi la jox xana du bes bi la jox bo bes la metti gu ma ko de bi benen la. bi benen la. kenn moo ko jox ki fi ñewon dem wa ah koku ku bax la. wa tay tey eh, Ndiolé yaa def nice. ah. kan ngay sarmi ni yow la sarmi eh dedet fa ñaa ñangi sawet de. Fatick ñaa loo wax ci lolu waa léegi yow Fatigna lan ngay sa euh, sa fans yi nga xamante ñu ngi jàkkaarloog yow balaa Fatigna di wax ñaari baat nag anamu kër yi laa soxla kër yi ma ma kër yi laa soxla ci numéro ki nga xam ne yi laa soxla ma xool seen mbëggeel ci Fatigna fan la lo, bala ñuy bala Fatigna di ubbi benn kàllaama di wax ak njañ yi naay si. ah waaw waaw écran ba ngi xonq cur ndax ay waaw waaw Fati Niang lan ngay nuyoo ami internet bu association taxawu ñu wéradi TV. moom maa leen di nuyu. Mhm. yéen namoon naa leen trop. Mhm. moo joxe waat pour man def live ak ñoom Kodou ak Ndiolé. Mhm. tey lan ngay wax ci diggante Kodou ak Ndiolé. Kodou ak Ndiolé dañoo baax. ndeysaan amuñu benn problème. dañuy waxtaan.

tey nga jàpp ni euh, euh, koddu yan yan kàddu moom moom lay ëpp lu muy faral di bari di ko wax. koddu. Mhm. mais mais tey koddu lan mooy li nga xamante ni moo manqué ci dundam. kan koddu. te chaque jour da koy waxtaane moom doomam. doomam yi. tey lan ngay wax ki nga xamante ni. tey lan ngay wax ki nga xamante ni moo nekk moo nekk moo nekk jëkkëram muy mbay sàll tey boo amee conseil boo koy jox moom mbay sàll conseil boobu lan la ci ci ci jabaram wala wala ay doomu kodd bon man li ma koy conseil mooy mu bàyyi kodd gis ay doomam mhm. ngeen maa ngi leen di jégglu yéen ami internet yi connexion bi moom moo moom moo baaxul waaye connexion bi mujj na dellusiwaat Faty Niang tolloon fu am solo Euh, lan mooy conseil yi ngay conseillé jëkkëru code. ma koy conseillé may mu récupéré code. waxal ci kaw. mu récupéré code. Mhm. bu rafet. Mhm. comme ça mu uuf njabootam ndax code loo war rek ma naan dooman ni dooman ni dooman mhm. moo gën a rafet daal mu jël ko yoraat ko nekk moom. tey su fekkente ni jëkkëram daf koo bañ a jëlaat bañ koo jox ay doomam yow lan mooy sa réaction ci moom. ma xam ne àdduna la rek ma xam ne. peut-être daa yaakaar ne dina gis ku gën kodd mm-hmm. mais yaakaar naa jigéen bu la jural doom amul ki ko gën daal doo am ki ko gën doo am ki ko gën ku nekk yow woon ci ay tolof tolof ci kodd lu mu ñu expliqué ba mm-hmm. noonu ba ngeen am ñaari bant mm-hmm. doo am loolu ki ko gën vraiment ak lu mu metti metti tey li nga xamante ni moo dal kodd su fekkoonte ni moom la dal est-ce que jàppoon nga ni kodd dina ko abandonné yaakaar yaakaaroo ko parce que tamit maanaam li gën a touché li may gën a touché jamono mu nekk ci kàddu yu koddu moom fu mu waxee rek moom daal bëggul beneen góor bu dul jëkkëram. waaw ko jëkkëram mbokk yi la ñuy wax ak moom. Mhm. bu amee lu ko métti mhm. nii bàyyi ko nii. Mhm. metti na trop. kii moom daa mel ni am na far. yow Ndiolé sa far nu mu tudd. Babacar. Babacar nan. Diop. Babacar Diop fu mu dëkk. yow ah, ak Touba ko sori. fan la dëkk ci Louga. dinaa laal. mbaa mu ngi ko defal. kon te nga bàyyi ruube bi. ah sëgal ma xool sax mbaxana mi. ah kon ba tey per mbaxana mi lay wax. mbaxana mi lay wax nag tey dañoo bëgg wax ji leer quoi yow yaa ngi nii boobu léegi yaa ngi tooñ njole ah di ko wax ay Père Noël ak ay Maman nowel ah. ñu bari ñi may laaj koddu Ahmed sugu ak may sallu ko la ci gënal eh bul bul ko waxal de Fatigna bay ko waxal bopam so ñaari doomi dal mu eh. moom ko ko sa am bopam hein mo moom gënal la gënal mais yow koddu may sallu fu mu lay yobbu yow fu lo may sallu yobbu parce que am ñaari doom ba pare yàlla ci bool lañu njaboot ba pare ngeen ba pare waaw May Sall est-ce ngi lay dégg. Ah, May Sall man damaa jàpp ni yow li ngay wax ni yëpp moom dégg ko de su ko déggoon xanaa kay dina la jël si. Ah, hmm. waaw looy xalaat nii. man dara. Hmm. xalaatoo dara. waa tey ni nga soloon nii moom sol bi num sañse bi num tudd. ya nti suuf mee dem soo xëyee tey loolu amul ma na nga sañse de waaw parce que tey la gaaw waaw ma def ni nga def ni jugal ma xool ni nga def nii eh yow lo lo lo may xoolee ni dama koo laaj rek de walaa bëgg waa léegi yow toogal bul bul bul wane li nga sol ñàngal nii yow njole laa bëgg waaye Ndiolé yow stratégie bi nga teg dem ba dem moom nu mu demee woon. démb daal. waaw. dama sama xel see nekk ma dem. sa xel a nekk ci dem nday saan rek nga dem. <laughs> def erreur bu mag. erreur bu mag nga def. yow noo noo xamee ni erreur nga def. dama kaa xam ne dafa xam ne mu guddee ma dem si. Hmm. erreur la. nan nga def ba xam ne erreur la. dama nu soree ma dem si ñëwaat. Hmm. moo tax sa kër gi mu xumbaay kër gi xum dana si dañ laa jëli dañ jël si waaw bi nga bi nga eggee rek gis ñun nu mu de xalaat waaw nga gis leen waaw damaa toogaa si kër gi lu nuyoo après ma indi ma ah bi nga ñibbisee nag kër gi mu joon na neex bi neexoon na kay wallaay ndeysaan di nga demati déedéet non di nga demaat du ko faa mukk sa àdduna waatal ak seen tuubaa mooy seen seex mooy kuy seen seex. borom gàmm gi. nu ku bees la. waaw seen seex xam nga seex. Ah, euh, lan la ci dabbaax Malick. rakkam la. ay waay. ay code ragalal yàlla ay ragalal yàlla. la oh, ay waay. yow de bu la tidiane jappé dinañ té nga wax lo xam bo génné xam nga ñëpp lañ la xamé dañ la fi japp door la ay doori sénégalais xam nga doori sénégalais du jeex eh. waaye lu ah gàmmu ji woo ah ah. ah ni nga defon dem ba dem parcel boko defon do gamu ji ah da metti ah ni nga defon metti wul de bi nga ñëwé diis na ma diis na la lol de léegi yow jàngu ti euh, euh, jàngu tiijaan yi loo ci man mu neex la ma see seetaan seetaan ñëpp yóbbu waaw léegi mën ngaa mën ngaa woy woyu waaw mu ngaa way de ah waaw mën ngaa woy woyu murit xanaa mus benn munoo ci benn guddik seen naa Mohamed ji doo ci def dara ah yow code xaaral ma dem ci code bi lu tax sang amel sugu và lu tax amel sugu woo def sang ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay cũng hmm hmm nga ni bébé Cheikh bàyyi loolu léegi man xam nga lu ma bëgg a xam code yow lan loo yabee njole waaw non da nga koy yab yow kii sañse sañ sañseem jël mbaxanam iya, tek ci bop bi bébé Cheikh baa nga def ah baa nga def buma ma door de kodd yow ñëwal ci ci Ali Kalek ji oui lan moy da nga dégg français comment tu comment tu t'appelles man Machel kodd Mbaye man Machel kodd Mbaye man Machel kodd Mbaye où tu habites <laughs> may mëna da ngay génn néeg bi de Ah. Eh, on ne parle que du français. D'accord On ne parle que du français. Comment tu t'appelles Mademoiselle quoi Mademoiselle Cordombay. La femme de qui Comment tu t'appelles comment tu t'appelles. man daal ñaan. Eh, ña sama néeg bu seen mbàkke. waaw dafa ko doxoon nañ ko ba mu jekk. bëgg naa am wëlis bu rafet. waaw ak télé. Hmm. ak rajo. Hmm. ak lamp. ak daal yu rafet. waaw ak yëri rafet. waaw boobu yow te wax commencé guñ ngay sambay mbayaan. ak daal yu rafet ak yëri rafet. yaa ngi gàmm laa ko wax. jour gàmmu nga ko diis kan man. wala ñu lay seetaan. ah. ah koddu koddu kii loolu la tal. démb nag dégg naa nga wax benn baat bu am solo. Mm. nga ni comme defaral nañ njole néegam. léegi yow. yow Mbaye Sall la war a jëndal téléphone Mbaye Sall moo la war a jëndal téléphone Mbaye Sall moo la war a jëndal téléphone yow lu tax foo waxee rek tudd Mbaye Sall lu tax lu tax boo waxee tudd Mbaye Sall yow Mbaye Sall fu mu la yóbbu yow yow fu la Mbaye Sall yóbbu <laughs> ak yaa ngi dégg de ah, ak man ak man ak man sax hmm. ak man léegi fa maa ah, ko. man loolu nga bëgg. kon ne fooy yóbbu papaam <laughs> ñaa nga naboon kat.

taw taw <laughs> daw kay. daaw ay sentiment am rek ma koy déglu. waaw waaw léegi yow. loo bëgg ma def ko yow bu yow nga ne bu jàkkaarloog yow wax loolu ci sa jëkkër. nga toog nii du nooy nooy lu nii. mais nee na dalaa bëgg. mu wax la ko léegi loo bëgg ma def ko dis-moi. nga ne ko eh ne ko man sama kaay fees na. yow loolu da war a lijjanti. ma ko lijjanti parce que kaawu Ndiolé ak normal bokk. ah. parce que Ndiolé mii li muy wax ni daa mel day gént. Ndiolé nekk fi de. Ndiolé tey la ban jour. tey la tey la samedi. tey la samedi ci kañ. Ndiolé mu ngi fi. la kii la ñaata. le huit le huit ban weer. le huit septembre. waaw may ma ne lu muy ree. tey la samedi. wax na dëgg. tey la samedi. Fadi Niang yow naa la rey de baax nobaate gi ñu nobaate nii mën nga koo gis. waaw. yow nag gis balaa live bee jeex balaa live bee jeex ba moytu dinaa la dóor ngan di arrêt. yow ma ne la Mbaye Sall fu mu lay yóbbu doo ma tontu. Ah, a yóbbu fa mu war a yóbbu eh, yàlla déglu tuuti. nga ni fan la war a yóbbu fan la fa mu la war a yóbbu. waaw ba mu la fa yóbboo de am na solo ndax boobu ba léegi fàtte woo Mbaye Sall. ah nga xam ni Mbaye Sall moom ay ca. lan moo la gën a neex ci mbay Sall. lépp. lan am na lu la neexul de. am na loola neexul. ah lépp ko neex ci jëkkër am na lu yow sax yow sax yow loola neex ci sa jëkkër yow. man sama jëkkër. waaw sama jëkkër dama kaa nopp lépp ma neex ci bopp. mais eh, eh, eh. moom tamit c' est c' est la même chose nee na moom lépp ka neex ci jëkkëram. waaw am na dafa la war a neex waaw daa war a bëgg jëkkëram nag neex ko. yow Codé mënoo génn sama diggante Fatick. doo ci génn de parce que mënoo cee génn. naan da ko waroon a bëgg. bu ci génn dugg ci mu ci génn dama ci dugg ba ca biir. waaw. dama ci dugg ba ca biir moo laaj ko dama laaj ko. amoo fay du rendez-vous waaw mais yow dama laaj man su ma la laajee kay rek loo may wax naan fi la Faty Niang yóbbu. waaye loo eh? eh? man li ma bëgg. li ma bëgg mooy. li ma bëgg mooy njole mii nga bàyyi ni koy tooñee parce que yow da ngay tooñ njole rek te njole du la tooñ waaye mais lan ngay ñaanal njole xam naa ni. li leen li li la dese sa diggante ak moom dinaa la yóbbu ba kër ñoom njole mbaa di nga koy xaral di seeti njole waaw koy xaral di seeti. Ndiolé lan nga koy ñaanal. mën ko ñaan mu denc nga anh ta lại mua như ngay anh ta lại nga gì anh ta lại anh ta lại là phải nga lắm nè có qua như nào nga là nga mình lên nga là có qua như nga anh ta lại nga anh ta lại có qua nào còn qua như nào qua như bên đây mua anh à, mua anh gì đấy à mua con nông à đó là thực hiện mua à bây giờ karam karam đó là thực hiện à tôi hiện đâu mà nè à tôi chơi bukan musibah dégg nga noppi waaye taxit bu ne taxit dafa neex xaw ma lan mooy taxit nii mu def nii. mooy lan bu waxee mu ngaa yambal bu bëggee loolu mooy taxit moo tax ma ne ko loolu daal taxit loolu taxit dafa neex. bu gën a yokk bu gën a yokk. dégg nga noppi waaye taxit bu ne taxit dafa neex. ñaaw gën a gën a ñaaw ba léem gën a léem gën a yokk. taxit gën a yokk ah ñu ne ko fasaat yàlla waaw. waaw naan ko ma koy naan. <laughs> laa taala alayhi wa sallam loolu gàmm yonent bi dama koy naan naan si naan xam nga naan Muhammad koy naan yonent bi ngay naan jaamoo waaw naan ko mu jeex nga naan jaamu gi ba mu jeex waaw boo naanee jaamu gi naan yonent bi naan gàmm naan yonent bi boo naanee yonent bi naan gàmm naan Seydina Muhammad boo naanee Seydina Muhammad naan gàmm naan Muhammad na boo naanee Muhammad naan yoon kii bi kaaba nga xanaa kii bi ah ah doon na ko naan kaaba Muhammad boo naanee Mouhamed. am kii. damay dama damaa ragal nag nga naan ñooñu ba naan. bu des. ban la. boo ko waxee di ay. Seydina Mouhamed yeneen bi. Seydina Mouhamed waaw. ak Ahmed. ak Ahmed waaw. am ah, Ahmed Ahmed moo desoon. wallaay ndeysaan. ah na ak Ahmed waaw. Ahmed ak ak kan yonent bi. waaw ak yenen bi. yow loy loy ñaan ci guddig yenen tibi bi. ju baax am solo. jëkkër ju baax yow lan moy sa problème ak jëkkër. bu rafet. no xaaral dama bëgg xam sa boo am dem ko meew lay jox eh kay ni Anda. ta anda yow lan moy sa problème ak jëkkër. jëkkër ju baax. waaw am solo. waaw am talibé waaw am si lu baax. waa yow ak li nga ak li nga mel ni demal jox ko meew après mën nga ñëw reprendre. ah yow jëkkër nga bëgg waaw yow la yan jikko nga taamu ci jëkkër mu jullite waaw am yaarame waaw am Muhammad mu mu jullite yaarame ba noppi am Muhammad Muhammad mooy lan mooy eh, maanu waaw ba yàlla tooñ la yàlla man na gëm yàlla ànd ak yàlla allahu akbar loolu yàlla tey est-ce que yëkkati leen loxo yi tey est-ce que dafa ne ànd naa yàlla. Adja Ndiolé mucc àdduna àllaaxira mucc lépp lu bon. lan moo tax Ndiolé yi ñoom ñëpp ñu ñuul. a yàllaa ko def. lu tax ñu ni njole jama jamaa noir am na benn njole buy woy naan jamaa noir. yàllaa ko def yàlla ànd ak ñëpp. yàlla ànd ak ñëpp. mu def ñi mu def la yow nga ñuul. waaw mu def mu yow ban jëkkër nga bëgg. bu bu bu grand saaga. buy doon di saaga. ay waay ay waay. bu dóor di saaga waaw baax na daal. muy métti muy dóor. muy saaga. waaw noppi daal. te noppi. waaw gàtt tànk gàtt làmmiñ. mu gàtt tànk a saaga. mu la joxe alal. mën a dóor. mën a joxe xaalis waaw mën a dóor. mën a waaw. ci kaw wala ci <laughs> mën a joxe dépense. ah. ma ngi koy lànkloo. nga koy lànkloo. mu ñu waar si man. muy ñëw ci yow rek. dama joxaat. yow loo koy won ba muy la ba ba muy lànk. ah damay baax let. da baax let. waaw ah, damay maanu. waaw baax na naka baax na bàyyi suba. mais tey jii yow bu ñu la delloo tuubaa tabaxal la defal la fa néeg bu baax mbaa duñ tëjaat njole ci néeg bi. déedéet. lu tax mm. ba ba mu jekk noonu lislaam bi xool ba jàpp la ndax nag yu bëri doo ko def sa àdduna te yow doo ko def yàlla lu ko nangu si dem gëmuma ko gëmuma ko yéen ñi nga xamante ni jamono bi yéen suivre live bi cinq cent trente deux direct bi Euh, li ma ci mën a liir laaj leen ko dinaa ko liir laaj leen ko maa ngi ànd ak yéen ci direct bi su ko defee ku bëgg a laaj njolee euh, mu laaj ko man ma liir ko laaj ko après euh, ma ma ma laaj ki nga xamante ne mooy code lan moo tax code moom mu ñaanal la ah. yoo xam ne am jaww ji ju baax. soxna doy na sëkk non jabar yi doy nañ ah yow Fatou Niang dina la mbéj de. doomu si Cheikh bu ko. bañu ma ko de. yàlla ñëw yaa ma salaam. doomu si Cheikh doomu sëñ Cheikh kooku taalibe kii la yeneen bi léegi yow loo koy loo koy loo koy neelu kooku baax na de. ah nit bu waxee nit ku baax tey yow du ñu du ñu ci gars yi ñoom ñu ngi wax naan ah ku baax la ñu koy seede Njole ku baax la ñu koy seede mm-hmm. Ibu ku baax la ñu koy seede moom loolu la wax rek ni doomu sëñ Cheikh ku baax la ma ma ma ko ku baax la. Mm. man xaw ma ki may wax di Ibu na leer tuuti. ëpp na. Ndiolé. Ndiolé ñu continuer Ndiolé. yow sa doom bi kuy papaam. xaw na fa mooy mooy Touba. Hmm. mu tudd Xaadim. Xaadim takkoon. dama dama dama kaa loo ko defoon. damay xale ma fon dama am baloon. <coughs> Yun nagkakal, yun naman. Alam this one. Yun naman. Number. Number. Nga ko. Nalalo niyo may ambal. suturaal ko. xaaral ko ëmb bi xale. loolu la wax de. est-ce que kon wax na dëgg xam naa. noo <laughs> ko gisee. ah xanaa jigéen dañ kaa ëmb mu am doom. war a xam ah. gone góor yàq nee na gëmu ko nii est-ce que dëgg la gone góor yàq la gëmoo ko. yàq lañ kan. am na doom kay mën naa koo gëmm waaye bu ma ko ëmbal. am na doom kay maa mën a yem am na doom. am naa ñaari doom am na doom kay. am na doom kay. am na doom bu hmm. am ay 5 ans. am na ñaari doom. yoo xam ne kenn ku ñëw mag ci des moom ak moom. léegi yow mais man ëmbaluñ ma de. ëmbaluñ la kay. waa léegi noo def ba am doom. <laughs> damaa am doom damaa am doom war am doom am doom rek man kenn ëmbaluñ ma de. <laughs> dañ laa ëmbal sa jëkkër moo la ëmbal. sama jëkkër moo ëmbal mais moom <laughs> la moo tax ñu ne la nga delloo ak sa jëkkër balaa ngay dund bi moom ngeen du jokkoo. kon dellu sa jëkkër. may léegi yow moom yow moom am nga doom mais ëmbalu yi. de. laa ëmbal sa jëkkër moo la ëmbal. sama jëkkër moo ëmbal voilà mais. la. ëmbal daal. wax xanaa moom tamit jëkkëram ëmbalu ko. faram. faram mu ëmb lu mu. waaw. est kii li muy wax yow li muy wax noonu la demee. non demee kay Codou dama kaa ragal de. Codou dama kaa ragal. loo yàlla loo ko ragale loo ko ragale muy am wax ñëpp dis beneen dëkk la tamit wax ñëpp dis muy am merci beaucoup bébé cher nga ni da nga ragal kon waaw loo ko ragale ya? muy am wóorul mhm. daal wóorul mën naa noo demee comme code yow ya, da ngay wax muy am lan ngay ñaanal ñi lay damay wax muy am. waaw Jole loolu la wax de. lu baax muy am. nee na daal yow loo loo wax day am ndax ndax moom dalaa ragal. ñoo loolu la ragal. di si nit daal loo xam ne jaaduwul. dëgg la dëgg ko raay bi xam mu gëm ko daal. loolu la ragal. waaw man dong laa ne. man fa mbax naan bi. waxal ci kaw dégguma lay wax de nga ne ko lu mu lay ragalee. ma gën a xaw ma gën a am. ma ma ñu xaw hmm? ma ñu demee. affaire bi ñu demee. waaw léegi mom yow Ndiolé ban jëkkër ju mel nan nga fay ñaanal. ñaan ko jëkkër bu baax. han jëkkër bu baax. waaw waxal ci kaw dégguñu li ngay wax yow tamit. ñaan ko jëkkër ñaanal ko jëkkër ju baax. bu am xaalis. ah. loolu nga bëgg. voilà fadiña ki li wax ni code li wax ni yow lo ci xam neena neena nee wax rek Ndiolé neena code lu wax mu fan yi na ma naan loolu la. léegi nee ko mu ñaanal ñu koy. tàllal ko sa loxo ñaanal ñu. comme moom lu mu wax mu am ñaanal Njole. waaw Codou ñëpp nee nañ la nga ñaanal leen. ñaanal ñu wallaay ndeysaan. ñaanal. ñaanal ñaanal loo yow loo ñaanal yàlla na Mbaye Sall yow ñaanalu ma la nga amee. ah yow yaa na Mbaye Sall rek yaa fi am jëkkër tudd Mbaye Sall. waaw ah, am na femme bu dëkk fii jëkkër Mbaye Sall la tudd. Ah, dëkk Mbaye Sall waaw man ah. yow ñaanalal nit ñi. waaw ñaanal. man. ma eh? ma bëgg ñaanal yow. waaw. sama juróom yow gis nga yow yaa ngi toog ci wetu Fatiña Fatiña da lay mbéj baax nga may ñaanal ay ay jabar nii xam nga Maymuna am na wujj moo tax waxu ci bonheur am na wujj moo tax waxu ci fi mu moom mooy wax de gis nga Maymuna ngi nii di ni mu yàq moom mooy may kii mooy mooy aaw aawa yaay aawa yaay aawa yaay. ay nit la foofu. ci góor bi jàngi. yow yow sa jëkkër daawul woyal lala la la daan woyal. bu njëkk daan jox. ah moo daan dàq lu ne. lu mu daan jox. yaa ngi daan soow. bu guddee rek mu jël sport soow. moo yow da ngay naxaate rek. soo dëkk amul meew la am. ah soo aadoo am di. meew la am. seen dëkk seen courant. am na courant amul courant salaire la am mais am na si ay soow yooyu de. moo xanaa soow béy la. soow aado. soow aado moo yéen seen dëkk boobu daa am dara. ay pot la ko ay pot. mooy pot soow aado. mooy soow aado yi la Ameth Sougou di indil. nekk ci pot yi. ah muy mag nekk ci pot yi. mooy yi Ameth indi rek. yooyu lu nekk ci ay mbuus la nekk ay toile moo la gën a neex ci Ameth Sougou. mu gën a neex ci. ci Ameth Sougou. naa nangu naa jënd. na naa nangu naa jënd soow. nangu naa fene daaw. ak lan. neex na may nee lu nga ne càmme. neex na ma neex na la daal ah yow de Ameth nan la takk mais sa jëkkër noo koy def bu la bëggee jëlaat. waaw xam nga boobu boobaa dootoo waxi Ameth. waaw waxtaan leen puusal ne nga nga jege Fatick ñaa ngeen waxtaan. sama jëkkër dafa ma jaaxal. moo la jaaxal. waaw moo tax moo lay jaaxal. xoolal rek. Hmm. ah. léegi yow Fatick ñaa yow fan nga yaak maanaam. yow lan nga yaakaar ni code bu ko defee jëkkër ji dina ko jëlaat. bu ko defee. waaw pour jëkkër ji mën mën koo nomaat. mu toll nii jëkkër ji daal suuf si lañu teg ñu ñëpp. Mhm. ndax code du ñaawut. ñaawut wallaay ndeysaan. te dafa baax. baax na torop ah encore ah, du mbay. waaw. loolu fa Fatou Ndiaye wax mi ci yow. jëkkëram daal man na ma yaay waa réseaux sociaux yi baal mi daa yabaate. Mm. ndax yor sa jabar ba ñëpp xamee la ko ba mu neex la nga jékki-jékki rek bàyyi ko. Mm. bàyyi ko waaw jëntitootoo ko faaleetoo ko toppatoowoo ko ba ko mo xam mais boo demee dugg sama néeg tey ma la ñaan ma dëkkal moon na sama néeg man yow kese yaa dëkk sa néeg ñu ma dëkk man doomu sama néeg moom doomu sama néeg sama dëkkam waaw ah moog jëkkëram waaye bu doon dëgg gis néeg ba tey boo duggoon da ngay jooy waa léegi yow tey boo duggoon bu ñu demoon ànd ak yow ba ca dëkk ba ah, sa dëkk ba waa léegi xaaral ma wax la léegi bu ñu demoon ànd ak yow ba ca dëkk ba ah, ñu ñëw ci biir néeg ba nga fekk fa Mbaye Sall am beneen jabar nag ma xam naa am beneen mais Mbaye Sall moom waxul am beneen jabar mais ambal na sax ambal am ak moom doom doomu góor ëmbal na na keneen ba am ak lu tax moom muy ëmbal tamit na man loolu dafa ah nga nekkoon yow boobu am na benn soxna bu ma yónnee tey cinquante mille mu ni ma damaa bëgg nga jëndal ci koddu euh, ñaari ensemble pour doomam parce que démb bi ñu def live doon nga wax ni dangaa bëgg Eh, ñu jëndal ku la jaayal teel pour ñu jëndal la. ensemble mais Paa yaakaar naa da ngeen dem ba foofu ngeen ànd ak xale jëndal leen lu leen jot tem ngeen jënd lu koy ëpp. sa at am am ku ko doon sama doom bi benn am ñaari at bu bu am at. ah ñooñu ay xale lañ. Ah. kon yow ah, Mbaye Sall tëbalul di. ma mag man ma mag ñaata at la wax. normal kay day tëbal ay at la am bi ñaari at. Mm, du kenn ki moom ñetti atam ci lay toll parce que kenn ku du mag wala atam waaw kenn ki ay ñetti atam fi nekk woon. waaw ci nekk war daan doon daal. at benn at. bi eh bàyyi tëgg mi tay guddi yonent bi alayhi salaam eh, loo ci mën defal. si karal ñu wala nga taggal ñu Seydina Mohamed xanaa loolu mën nga ko. yeneen xayrul anbiya wala nga taggal ñu ci sëñ Tuubaa sax. wala nga ñu la waaw ngay iPhone bi génn léegi ci live bi. téléphone bi la jëndoo mu génn. iPhone nga bëgg. waaw iPhone laa bëgg. acca guddi gi yonent bi sikkaral ñu aw la. booy sikkar gay ñu lay aw. yii iPhone nga wax de. iPhone laa wax de. xam nga iPhone mooy téléphone yu bari. iPhone mooy téléphone bu bari. phone mooy téléphone ay mooy yu bari. ay mooy iPhone mooy yu bari. waaw iPhone waaw iPhone waaw. mooy ay téléphone yu bari. waaw. phone mooy benn. waaw. mooy iPhone laa xam. ah iPhone nga bëgg ah. waaw léegi comme iPhone nga bëgg nag jaami yàlla yi ta soppe Seydina Mouhamed yi ñu ngi lay déglu si karal ñu ah si si karal ñu ci guddig yeneen ndax fi mu toll nii juróom juróom ñaat téeméeri doomu aadama ak juróom benn fukk ak benn ngi toog di leen seetaan seen instant de bonheur bii te man ci kanam tuuti damay dem cant ya falaay fanaan kon nag fi mu toll nii war nga ñoo mën a war nga ñoo mën a may dara. yow si karal yow code bi waaw dinañ la yóbbaale. waaw aca léegi si karal. loo ñu mën a si karal. waaw léegi loo ñu mën a si karal. yow may mun a munoo bàyyi Fatiña mi ngay mbala. munoo bàyyi Fatiña mi ngay mbala. man ñeenteel ñeenteel bu ñëwee rek ma abal ko. ma ne fépp waaw waaw waaw waaw. laa koy abal. da ngay daw. nga ni ñeenteel bu ñëwee. ma abal ko fépp. abal ko dem fan. ah gina ma abal ko sama néeg sama abal ko. kon de abaloo googu ndax ñeenteel du fi am. barki rës ba ba ba maa seen fi ade rab fa ñam ñeenteel. oo oh, yaakaar waaw dafa toj. eh xam nga xam nañ. ma ne ñeenteel loo waxuma toj ko sans fenn rek dama ne ñeenteel bu ñëwee ma abal ko fépp. bés naa damay eh, suuf. Eh, ñeent ñi si ginnaaw déglu leen. Bébé Chéri yi waxal dégguma li nga wax de. mane waaw man li ma wax dé ay ayu dama né ñentel bu ñé ma abal ko fi bé ak sama néeg nga abal ko ba abal ko sa néeg waaw ah kon mayel code ma fanam bi lan code code code néeg ban yóbbu ko sa néeg yow dem amna ben ma amna tan yow nga am amoo nga dëgg na génn kër code ba code nak may ñu dara ci guddig yonent bi bala live be sama téléphone baa ngi fay code mbay code mbay iphone ñu bari ñi ngi ñi ngi ñi ngi naan waxo ay ay telephone yu bari iphone nga wax waaw sa telephone bi waaw iphone nga bëgg aja si karal si karal rek tay guddig yonent bi la kenn du fi si di jóg déedéet da ngay guddig yonent bi guddig yonent bi lo ci def ngay continuer aja si karal ñu waaw woyal woy woy woyal woyu murit waaw léegi ñëwal ban woy nga daan woyal kii kii may sànni benn bi daal laa man waaw muy muy bi naan bu ñëpp jógee ñu seeti baay ñu seeti seeti baay baay naa allah allah fay yàlla allah allah acca demal demal ñu ngi lay déglu waxal ci kaw ñu déglu la ala ala ndeysaan ala booy yàlla leen ko ala ala ak am na ko dugg léegi first baaji nee na code boo si kii first baaji nee na boo sikaree mu wéef la léegi léegi nee na booy sikar mu lay wéef léegi guddig yenent bi dañ yéen la ñuy teral booy sikkar rek ñu lay teral njole am na ku yónnee léegi de nee na boo sikkaree léegi rek mu mu mu kii la boo sikkaree léegi mu yónnee ñaari junni waaw guddi gi yonent bi def leen ci dara def leen ci guddi gi dara koddu sikkaral sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam e aw leen Seydina Mohamed waa kay waa kay aw junni la wéef ñëwal ku nekk waa jàng bi nga gëj a déglu waxal ma waxal tuuti ma ma fàttali la ko waa léegi kii waa léegi kii jaamu boobu la mais jaamu xam nga guddik Seydina Mohamed la moom nee na Seydina Mohamed lay màgg. mi ngi sama xel mais jàng bi mi ngi sama xel de mais dama ko waxaat. allez kon nañ dem Tivaouane tey. Tivaouane lañ jëm de. boo waxoon nañ dem siyaare mbay docteur tariqa be bari fay tànk ay fa mbay min diini ma xanaa woo. doo leen aw. Ah. ñi mënuñu loolu de Adja yow ñu màggal Seydina Mohamed fi nga nekkoon baax na de Adja 10 000 yi ñëw de naan leen toog ñu seeti baay ñeneen ñu dem ñu seeti baay baay dëkkam ba mooy Madina baay baay dëkkam ba mooy ay waay Madina baay ndeysaan allah allah baay allah allah allah allah allah mu ni yàlla kenn la allah allah. jaajëf waay barki seen naa ma. maam. nga ni Baye Niass. waaw waaw. na nga ko wuti seeti ko. seeti ko. ñu Bye bye bye ñu bye Bye bye bye xam bye Bye bye bye bàyyi bye Bye bye bye bàyyi bye Bye bye bye bàyyi bye bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ala bàyyi. bàyyi bàyyi bàyyi ala bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ala bàyyi. ndeysaan neex na. neex na kay yow kay loo loo wax neex na. ala bye bye ala ala bye yow kon. lan ngay lan ngay tàggoo ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan live bi ñu ngi koy ñu ngi ñëw yëkkati jotaay bi ndax booba léegi ñu ngi lay suivre lan moo la gën a neex ci kër gi kër gi moom macha allah kër gi moom neex na a ngi fi macha baax na nuy eh eh yéen waxoon naa leen ngeen dem si biti baax na macha allah kër gi neex na lan moo la manqué fi mu toll nii dara fi mu toll nii téléphone bi la ah, waaw dama jox téléphone bi bokk iPhone waaw acca bokk dama ko jox bokk ki koy jox dinaa la ko jox ah man aw man waa léegi waxal ñu. waxal ñu ñu jaantal la téléphone. lan dama ah, ah, ah, nee nga ma fan xale yi naxal leen ma leen eh dama naxal ma leen waay ma eggale live bi. waaw waaw ànd mooy Medina Baay waaw koddu waral lii Seexul Islaam moo waral lii. ku waral lii seexul islaam moo waral lii kan moo waral lii seexul islaam moo waral lii allah allah baay allah allah allah allah baay allah allah ay ca allah allah baay laa ñas képp kuy taalibe Cheikhou Tidiane tey jii wax dëgg yàlla am nga loo yëg ci ki nga xamante ni moom moo di koddu xam nañ ko ci jàmm ji ak bége bi ak wax dëgg yàlla eh, mbalag yi yëpp mi ngi ci koddu waaye rek lépp li muy feeñal rek mooy koddu nit ku baax la nit ku baax la comme njëgu iPhone dafa cher nag dajale leen rek ku am téeméer dugal ku am 1000 francs dugal koddu daal bëgg naa bala muy ñibbi mu am iPhone numéro bu baax baa ngi noonu di 77 190 77 su ko defee euh, Codou Mbaye am iPhone boo amee tey iPhone koy njëkk a woo. ak ah ak sama man sama borom kër fekkee moom ba tey moom bëggoon na ma salaay parce que fekkente bëggoon na ma kon daan taxawaay mu def la ko war mu ñu fekk sama fi ma nekk. ma ne ma xam ne bëggum ma xam ne lool. wallaay ndeysaan. te yàlla boole ñu jaboot ba noppi. ba de. boole na leen ba pare. tey lan ngay ñaan kiri de cœur. boo xamante ni code moo koy ñaan jëkkëram mbay Sall mi lay dégg tey lan ngay ñaan sa jëkkër ngir mu nga delluwaat sëy bi sigil sigil wax. pour ma dee jàpp su nekkaay moom rek pour ma yàlla rek koo njaboot. njaboot moom yàlla nañ am nañ ko woon ndeysaan muy day ñaaw rek mais am nañ koo pare. wallaay ndeysaan. métti na trop de parce que bu fekkee ne da nga faa jóge bàyyi ay xale yu nekk ay tout tànk. Mhm. gis ñu seen yaay dégg ñu seen yaay. Mhm. day métti loolu day xale. wallaay Mbaye Sall. bu nu ay mag sax mais ay xale lan. mbaa mhm. xale la du xale la. kon daal lan ngay ñaan Mbaye Sall pour mu jëlaat la soxla. ay xale la waaw mu mën a nekk sama doom yooyu rek. wallaay Mbaye Sall mais est-ce que yow mbëggeel ci Mbaye Sall ba tey ba tey yaa ngi bëgg Mbaye Sall. waaw man ma doon ba tey rek parce que Mbaye Sall du mag moom it. ah du mag moom it de boo ko xoolee ba xool suñu photo xale bu mag du mag moom. du mag moom kon daal jàpp nga ni Mbaye Sall war na laa mën a jëlaat. ci tey boo toogee boo toogee boo toogee ba mu yàgg ñu ni ñu ni ah Codou nag day delluwaat ca néegam ba ah Mbaye Sall ah tak tey ku la defal loolu tey lu mu la defal. sigil wax ak man Codou. waaw sigil lan la. dara waxal waxal waxal. tey. waxal looy looy triste triste lu ni da ngay xalaat ba na koy côté di ko jalax ca lal wëndeeloog moom ah bërëngu ah jéggi vague yi la ilaha illallah kon du fa mbay dugal fan fu mu la dugal bëgg gii de mom mom, bëgg gii moom du tricher moom mbëggeel original bëgg la dina la jëlaat. dina la jëlaat Faty Niang mi ngi la koy ñaanal moom lu mu ñaan moo am. nga doom. bilaay toog uuf sa njaboot. uuf sa njaboot. dara daaw. tey daal bëgg ngaa delluwaat ci sa kër uuf sa njaboot. jàll ca ginnaaw mbay. jàll ca ginnaaw mbay sàll. mbay sàll am na sikkim. am na sikkim sikkim. amul sikkim. xanaa ku mel ni mbay sàll amul ci senegal gi nag. jafe na fi. mbay sàll daal. ndeysaan tey yaa ngi doon sikkaru woyu Baye Niass lan ngay ñaan yàlla Baye Niass. mu defal lako ci sey sey bi nga delu wat ci sa borom kër lan ngay ñaan ci barke Baye Niass barke Baye Niass nu hmm. ma def ba loy ñaan ci barke Baye Niass ci sa sey bi ha sëy bi dara fu nekk nak mu barkeel mu barkel dara fu nekk rek nga delu wat ci sa jëkër jëf fekke nak mu ta nekk hmm hmm nga lo lay hmm hmm ndeysaan ndeysaan tey daal loolu daal mooy li lay béggal ku la ko defal defal na la lépp. waaw ngay xëy di gis sa njaboot gi. waaw ah. Fatigna kii euh, euh, code wax daw yaram de ba tey lan mooy sa ci jëkkëram. jëkkëram daal na bàyyi sago mhm. parce que di neex a góor tamit jëlal kuy jigéen tamit loolu tamit rafetul. ñu naan la ku la jural day mel nit benn jigéen la noonu mais ku dem ba jural ay doom xanaa kay ay kilifa bu ñu waxee dina ko dégg genre ñu wax ak kilifa yi pour ñu toogloo ko xanaa dina ko boobaa dina ko jëlaat. ndeysaan. Ah? sori na ci moom de. bëggoon na ko kay te na ko mën a bëgg ba tey. ndax ja ndax njaboot gi. ndax gi xale yi. Mhm. ah Fatou Thiam nee mbay ngir yàlla yërëmal Codou nga jëlaat ko mu uuf njabootam lay ndeysaan. tey dégg nga code sànq muy demandé téléphone lan ngay wax ami internet yi ngir gën a dalal xelam. bon xam nañ ni ñàkkuñu ko ñoom it tamit mu ngi leen ñaanal yal na leen yàlla uuf te jàppale leen ñu jàppale code. Mhm. ñu jëndal ko téléphone iPhone neen la bëgg kay. jëndal ko téléphone. ku la lan. mu jaayanteel la ko iPhone 7 8 1 ba ñaata ban iPhone nga ci gën a bëgg. iPhone. ma mm-hmm. wuutal rek na nekk bu nekk bu ndaw la na nekk bu mag. na nga def ci photo mbay sàll bu mag. waaw photo Mbaye nga ji def wala sa photo doom yi. sama doom ah. looy ñaanal Ndiolé nag Père Noël toog. loo xool ci Ndiolé ba tuddee ko Père Noël. ñoo kenn <laughs> moo fi des Ndiolé lan ngay tàggoo ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan. maa sant bu baax di leen gërëm. Mm-hmm. xam ne yàlla moo ñëwoon. mënoon mm-hmm. nekkoon ay ay wér gu yaram. Mm-hmm. ay wér gu ay ay yàlla ñëwee xam ne fan ñu ñu. delloo na nekkoon ak tey yow bu yow ndax yow tey suñ la delloowaatee ca kër ga delloowaat la chaîne bi ndax dina la neex. du neex moom. maa ngi mel ne sans morom yi. ndeysaan. liggéey salon. maa ma liggéey ay ay raabu. ma liggéey ay kànkaay wala ay conteneur wala ay fii ay daal. Mhm. waaw. mais daal chaîne bi gën a lëttu la. non non. bëggatoo bëggatoo bëggatoo dellu ci bi. bi lu mu la yàqal ci sa dund. damay kale daal. bu gën si biir bu gën a ànd sama bi daf may de damay baare. daf lay baare ci lu bari. te daal instant bi yaa ngi sentir sa bopp ci biir. lan mooy sa bëgg-bëgg yi nga xamante ni moom nga bëgg ñu defal la ko ginnaaw néeg bi pare na. sama télé sama rajo. Mm-hmm. sama centre bee mm-hmm. mm-hmm. ak lan. ay yére. ak euh, kii peinture. nañ néeg ba ba pare peinture nañ ko. karo ko dër nañ ko ba pare. peinture nañ ko dër nañ ko utal nañ la bunt utal nañ la palanteer gis nga liggéey bi kon daal li ngay ñaan yàlla mooy yàlla buñ la defalati chaîne waaw sama papa daal gis na liggéey bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan mi noonu bu ma continuer di wax xol day tooy ndax euh, comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee Faty Niang lan nga wax ci loolu moom Ndiolé ñu enchaîné woon ko plus de trois ans mu nekk ci benn bërëb lépp fofu la koy defee mu metti lool tay gis nga bi mu génnee hôpital bëggatul dellu ci chaîne bi lan lan la la def en tant que jigéen. ay lool lool baxul du genre ñoom buñ ko takka takkati chaîne. comme que défé nañ ko né nañ xool beneen solution. Mhm. ay takk chaîne chaîne mën na dem ba pour tànk 3 ans ñuy takk nit metti prisonnier prisonnier sa duñ la takk ay chaîne sa vraiment te feebaru xel waru leena yobbu as.

bon allez dîner à la prochaine et là bi neex na ñoom code ak njole neexal nañ live bi dañ leen waaw ñu bañ leen fàtte jëndal téléphone ñu ko téléphone lañ bëgg biñ ci mënee jàpp ñu jàpp ci kii nee na rajo la bëgg ak télé mhm. ñu jàpp ci ndeysaan Aïcha ñu jàpp ci numéro baa non di 77 190 77 67 mooy numéro bu baax bi

parce que euh, formation bi jeudi lay jeex 4 jours damay nekk Thiès ñi nga xamante ni dañoo am ay cas social nekk cees nañ ma woo ci 77 190 77 67 incha allah dinaa fa ñëw tourné kaay yi boole leen ak bonne volonté yi ñu jàppale leen waaye maa ngi sàkku ci yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan ngeen ñaanalal ma sama mag sama xarit soxna Ndeye Fatou Diop Greensboro North Carolina mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanalal ma sama mag sama yaay di awataal wax dëgg yàlla di sama taaw yaay ngeen ñaanalal ma sama mag sama yaay di ajaaña ñoom ñoo tax jooyuñu Fatou Diop ñi jooy ñu may sa biige ñang ndax seen taxawaay ci ñun dafa rafet lool lool macha allah waaye ngeen ñaanalal ma sama baay bii nga xamante ni mooy mbay mbuub moom tamit yàlla yàggal taxawaayam bàyyi ko ci sunu kanam ngeen ñaanal sama rakk sama xarit euh, bàyyi sëwru wax dëgg yàlla sama lépp fépp sama lu nay fu ne maa ngi sant tey gërëm képp koo xamante ni mu ngi nuy bàyyi xel di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo abonné ci chaîne YouTube bu Ande Taxawuñu Wéradi TV sant ak ngërëm ñeel na leen yàlla mi am kattan yàlla mi am pas-pas yàlla mi am doole yàlla na leen defal tawféex jàmm sutura xéwal bu saawaan baawaan bu neexee yàlla man daal maa ngi kontaan ci yéen maa ngi kontaan ci sama soxna yëpp maa ngi kontaan ci fat euh, ki nga xamante ni mooy Maymuna Badji di kontaan ci la princesse d'amour waaye di kontaan ci ki nga xamante ni mooy moom bébé d'amour di Ndiémé Cissé di kontaan ci waa kër gi ci taxawaay bi nga xamante ni ñu ngi koy taxawu koddu ak njole génn nañ hôpital génn nañ hôpital waaye mënaguñ leen yóbbu ndax néegu njole moo parewul woon mais pare na fi mu toll nii la ca des rek mooy euh, utal ko matelas utal ko télévision utal ko ventilateur muy sàkku teefam li mu bëgg bu ñu ko yàlla mën loo ngeen jàpp ci incha allahu rabbul alamin fas nañ yéenee defal ko ko te yàlla rek tax koddu tamit li nga xamante ni mooy mbébétam moom mooy mu am li nga xamante ni mooy téléphone iPhone mooy mu am li nga xamante ni mooy iPhone waaye bëgg nañ daal yóbbu ko ba ca kër jëkkëram waxtaan ak jëkkëram waxtaan ak ay mbokki jëkkëram waxtaan ak njaboot ga ngir ñu jàppaat kodd mi dimbali ko delloosiwaat ko ci néegu sëyam kodd doo dégg mukk mu wax la ci baay wala yaay wala doom wala rakk jamais de la vie ngay laaj kodd mu wax la ci papaam wala mu wax la ci ginnaaw woyu juróom génn na àdduna jamais de la vie ngay waxtaan ak moom laaj ko loo ko mënti laaj daal ci jëkkëram rek rek rek rek la lay tontu waaye balaa ñuy tëj live bi xam naa ni loolu moom day metti lool waaye danañ ci laaj ki nga xamante ni mooy koddu koddu sa yaay fu mu la féete woon. sama yaay mu féete woon mu fu doon na ku baax de. doon na ku baax. ndax taxawaay bi la sa yaay doon taxaw ndax bi mu gaañoo léegi ñu ngi la koy taxaw. man waaw maa ngi sama rakk. ndeysaan. maa ngi sa rakk bu góor maa ngi sama rakk bu jigéen. Mhm. maa ngi sa maam bu jël sama yaay mi ngi dund. ndeysaan. maa ngi sama papa. ndeysaan maa ngi sama tante. wallaay ndeysaan maa ngi sama rakk doom baay. lan ngay wax sa tante sa tante mi ngi lay déglu lan nga ko wax dana kontaan na namm naa ko. ndeysaan. am koy sant ko gërëm ma ko ne ko namm naa ko. namm nga sa tante. ma naa ko parce que kenn ku ne nam sa morom. wallaay ndeysaan. man dama leen nam bay bëgg a dee. ndeysaan mu des daan def dama leen nam. lan ngay ñaanal sa papa. sa papa mu gudd fan. wallaay ndeysaan. mu yàgg fi yàgg noo yore ya, njaboot. amiin yaa rabbi. yàgg fi ñun ñëpp tam yor ñu. tey boo delloo Touba ba dem ba gis sa njaboot gi nan nga fas yéenee ci kër gi. ah xanaa papa ñaar du ma la bàyyi ko nit mais damay gën a bëgg rek. ndeysaan ma su ma sañoon nag moom su ma demee sama borom kër gi foofu. su ma mën lu ma gën a sama njaboot boobu de. wallaay ndeysaan. te am naa lu ma fekk mënu ma ba ma boole sama njaboot daal indaale leen Touba. Mhm. indaale leen Touba parce que foofu gorom bu góor a nga fa sama góor a nga fa. ndeysaan bu jigéen a nga fa. Mhm. am naa wuñ peccor ko. Mhm. am naa ay njëkk. am naa am yëpp. wallaay ndeysaan góor bu góor a góor bu jigéen. samay njëkk. say njëkk lan nga leen di wax sigil ñu gis la. samay njëkk li mu leen di wax mooy. ñu def nañ defoon rek gën maa bëgg. nañ jàppante woon ak ñu comme que ñu fi nekkee woon noonu lañ demee woon. ndeysaan. melon meloon rek jàppante bi ñu jàppante woon takkante woon rek acca Fatigna ñu ci eh, YouTube bi ñu ngi laaj Fatigna dafa jeex tàkk lan moo tax nga jeex <laughs> tontu ko tey kay dañ la koy laaj ay damaa jeex tàkk kay man sax xam naa dangaa jeex lu tax nga jeex peut-être xaw ma lu tax ma jeex mais man ça va ça va nekkuma ma jeex rek nekkuma am yaram lu tax nga jeex toppatna lan nga jàpp ne moo mu jeex lan moo tax muy jeex eh? daf ñaan ma am yaram waaw ah. ya. waaw daa amoon yaram amoon yaram Ki dafa amoon yaram de nekkee fii tooy xanaa doon sink gën a tooy da doon sink demoon na seen kër ñëw jeex daa demoon jinne jeex <laughs> eh tontul sa laaj bi nee nañ lu tax nga jeex te mala Pas malade. T'es stress. Ouais, je suis stressée. De quoi Stressée de je quoi Je garde ça pour moi. Merci. Tu gardes ça pour toi Oui. Ouais. Merci beaucoup, Fatigna. Merci. ok. ok live baa ngi noonu. qui kii nee na da lay ñaanal lan nga ko doon ñaanal sax moom. jëkkër ju baax. waaw. yow lu tax nga bëgg jëkkër yow. Na sey la noppal. lu tax nga bëgg jëkkër yow yow jëkkër du mu la jaral kër baay daa metti sa baay dundul lan moo ci ne ay njole ay njole garaaw baa ngi sëy sa kër rafet ay njole biir Dakar ngeen seen nii ay njole doo nu mu demee waa léegi moo toll la jëkkër sa gàdd gu rafet moo toll la jëkkër waaw ku ñëw baax na ku ñëw rek baax na dama yor ah am ma dégg fi bay faal. ku doon bëgg gan. ku doon wax am na ku doon wax da koo nopp. ku mu doon. bëgg naa bu dee jullit. bu dee chrétien. nga ni. ah lu nekk ci chrétien yi. dara tax nga ne ko man. dara xamal looy wax de. Eh, eh, dara néew. chrétien mu ne la ba nga ne nga ni. dama koy laaj. ah, ah du ma laaj. xam nga suñu kër maire bi jaay laaj ci buntu kër gi lay toog da fàtte loolu. yàlla. ju baax. waaw rafet. ñu mm-hmm. am alal. Mm-hmm. ju mën a. ñu ñaan daak suñu Babacar Sy. ji mën a lan. Mm, wallaay ndeysaan rek. loolu daal ngay ñaan. jëkkër yàgg na ko yàgg na ko gàmmu. waaw ñu yàgg a gàmmu. su ñëwati woon yi xale ñëw nañu. tànk <laughs> yi. ak saa yëkkoon maa ngi leen di sant di leen gërëm xam naa fii lay wàccee live bi sama téléphone bi fay na mi ngi mi déggal sama téléphone mi ngi fay ndax signalé ne léegi 5 pour cent moom moo ci des waaye daal mi ngi noonu maa ngi sàkku ci yéen ni ngeen ma bëggalalee ki nga xamante ni mooy la princesse d'amour di Fatignan ba tey jii mu am mbégte ba fu mu toll mbégte googu lay bégee ah jaajëf am na Basirou Diallo nee na ma pap yónnee naa la 10 000 francs macha allah ma nuyu yi parents yi nuyoo naa leen yéen parents yi. kilifa yi kilifa yu jigéen yi nuyu naa leen. maam jaara yi. maam jaara yi nuyu naa leen. ñun ñëpp ak yaay baax yi. yaay baax yi nuyu naa leen ak mag suñu mag yu baax yi. suñu mag yu baax yi nuyu nañu leen suñu leen dégg waaw waaye nuyu naa ñëpp barki rasulaay ma nuyoo ñëpp rek jeex na. kon mi ngi noonu maa ngi sàkku ci yéen ko koddu li nga xamante ni moom mooy mbébétam di bëgg-bëggam mooy iPhone ana kan mooy jaayanteeg yàlla nit iPhone bii. mako maa ko du tayam yàlla rek fatima gërem Fatima Fatima Fatima man kii gërëm bu baax da nga bëgg dem ba ma dóor ma génn lépp waaw xaaral ma ñu nga wax lool nga ni xaaral ma doole ma atte dem mo la wa lo tax mu atte la papa ba baal ko waaw bal ma bo lo defoon ma maa no ma doxé won mbaa di nga doxé ti doxeeti do to demati dé neexu ko ku amul yar yar rek mo koy fajj waaw waaw. mba démb am nga yar. am naa yar bu baax a baax. lu tax nga soobee ko démb. ay cëm mi ngi nonu sant ngeureum ñel na leen bëgg na leen contane na suma sañon live bi du gaaw jeex ndax guddig yonent bi lañ wax dañoo wara a bëgg tey bëggale macha allah batterie baangi taggo yalla ñu yalla defal jamm ak tawfiq sutura ak teranga iPhone bi lañ bëgg mu mat encore. iPhone bi mat na mat. ay ci code. aca taw feex sant ak ngërëm ñeel na leen jërë ngeen jëf